إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
ɓe mansoɗeɗulatenroolani yaranko aɓe fototari ɓe duwana ala annabiyoma ala jomma ala annabi mukilaɗi sallah alih w sallam amma isonene mokirani ko kola ɓe duwana ɓeɗumale min jeta assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ɗitonene mo annayake kamɓeyi وعليكم السلام ورحمة الله وقال كم من تكلم هي امر الله صلى الله عليه وسلم أقال التذكير وإن الذكر تنفع المؤمنين Aku kila sallallahu alaihi wasallam hakki bulando ke kanu hakki bulando akamu nafare men ni mana ya mun ukola kila sallallahu alaihi wasallam da hakki bulira aku balle ku hanni wala bi ayat alfutaniro hanatarale ayatinnano alsafutan wo sababu kama woni ɓaali musidmol gondinan ka botaka sawo sani kananan ka zamantan ilimol ka ñommakoy wo kuwala ka ɗum hadamatuye min ɗon aka jina walla mi yaade alaya fayi insan min ka jina ayoni ɗo ñama aka fosakir kono hadamatuye min ɗon aka jina walla mi yaaji a ko ala hakkilo gulani kono a sototala ay bindol cheytane yama sa ay hinana bar wolɓe tan rajjan mi yaaru wonde ko hakkil gulanɗo kela ayoto to alakama kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ako mattoɓe misiyada mattol ɓeedi wolon kiilala e mattol kaatu bukiri woni a saabu itel kañum ñaman kaynola e kayo ko tandi kuja wala e ketamol amin yalon ko ilmane a taran ko saabu ko kama ni ɓaɗumɗin ton ko min ton gonnan pour kanaka ka jaram wolum ɗum sunnol kila sallah sallam yimudel karatino ayatu jam ɗi ayole ton on pour ani musimole ka jaka e kon folede fodda sa sayidni
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبلي ci turu borom bi tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jurit yi mu ngi leen di ziyaara di ci jiital imam Cissé ak mbokki jurit yi nga xam ne ñoom lañ fekk si ci gox bi yépp noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala sunu jotaay bi yal na ko yàlla boole ci jotaay yi mu nangu ginnaaw loolu ni Cheikh Souleymane waxee nuwunu pour jàngale waaye danoo ñëw pour fàttalante ak sunuy mbokki jullit tomb bi nga xam ne moom lañ tànnoon pour fàttali leen ko mooy sunna yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax tomb bi nu bëggoon ko def ñetti xaaj yu gàtt a gàtt bu njëkk bi mooy lan mooy sunna ñaareel bi mooy lu tax nu war a jàng sunna ñetteel bi mooy waxi aima yi njiit yi nga xam ne mooy Ahmad Malik Shafii Abu Hanifa lan lan wax ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam
aku bari muslimun alal konton wala alal kiilaamo sallllahu alayhi wa sallam akaaɓe musidmol ɓe kontonno kontondirole miñaano kolo misilmoya kontondirode ko kola komin a kono ñaami kooma ñaam inaaɓe tanni imanna garadir la bari inaada hakkil bulandol la komin maario kono yayamaro ñaama a kobbiñi gundami ɗon kon ɓuri min moltimole eño hakkilo bulandala worom munom kiila sallllahu alih wa sallam no sunnon a ko kono ya ton bon ayake siidula sabali siidula kino a ɓoyitatila min mo kiila sa sallam la kuma kam siidula kolanjam aɓe kela sirol duniyano ko wolmi kela ayi mol wolam ñin jirtiyol ni mutel ko kiila sallah sallam la sunnoto a ko bi naali atalay aɓe ka jakira wolle léeg-léeg doomu aadama yi dañuy ñuy woowe ay jullit gàttañ lu torop ndax soo waxee ak ñoom ñu ne sunna la o ñu oyofal ko lool ñenn ñi doyadil ko ñenn ñi ñàkkal ko fayda fekk xamuñu ne sunna dafa am darajay alquran ndax sunna moom moo ñëw di firi alquranul karim benn borom xam-xam dafay wax ne ndax mës ngeen gis avion buy naaw te amul ñaari laaf gaa yi ne ko déedéet mu ne ndax avion bu am benn laaf dina naaw mës ngeen ko gis fii ci dëkk bi ab avion mës na leen tiim fii ngeen xool ci kaw asamaan bi ngeen gis mu am benn laaf avion bi ngeen juddoo ba léegi avion yi leen fi tiim fii ci dëkk bii ñaata laaf bi ngeen ne nii kaw asamaan ñaata laaf ngeen gis mu am ah imaam ñaar ci su ci diine diine islaam ñaari laaf yi mu am mooy alquran ak sunna benn laaf bi mooy laa ilaha illa allah beneen laaf bi mooy muhammad rasulullah laa ilaha illa allah kese du dem muhammad rasulullah kese du dem
ako niya tara sunnoyi amina min fol ako niya kutlaɗol ɗo mool saa feyandi ka fo mo sunno dammande ako ɗum sunno ay darajo suɗo darjo mi yalon ko ani alqur'an o kañanta ako munel ko yidandi ako ka ɗum sunno wole naataka alqur'an o fasara pour mole alqur'an o ɗon koye sunnole karan ako lonna ɗo ko amunta ko avion mi yaalo ko akadda akadi ako fo avion kadiile ani tampon kile ban ko ɗum avion naaɓe kiila ani tampon fulale kadi ako est ce que avion a dampon kilum na ni yo damman kile faa ɓe tinola ako mi yewo yitandi wo ɗum ate tinola ako wo misalo ko ñine a dampan fulwa wolom la ilaha illallahu fi a dampan marama wala muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa ilaha illallah mooy yàlla rek lan war a jaamu muhammad rasulullah mooy muhammad mooy wane ni nuy jaamoo yàlla yàlla bi mu bëggee nu jaamu ko te jaamu ko mooy du leen lu dul li ngeen jéggee jaamu mooy ni ko ibnu taymiya firee ismun jaami li kulli ma yuhibbu llah wa yarda mooy ñu def lépp loo xam ne yàlla gërëm na ko yàlla bi mu bëggee ñu def jaamu gi dafa wax muhammad demal nga won leen nu nuy jaamoo yàlla nu ñuy jaamoo yàlla moo tax yonent bi bi mu jullee dane sallu kama raaytumuni usalli bi mu ajee dane xuzu anni manasikakum bal sax yàlla dafa ne wa ma ataakum rasul fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu
ako sunnoñi ako la ilaha illallah way wi fasar wolon batu ma soma sama soto konamanke alati a bato yeke misilmo e nafati jang duniya folakira a batugaliya yeke moye torode duniya jan folakira konamanke allahu subhanahu wa taala ako muhammad atemo alala joneti bal alala kiilalum sallllahu alayhi wa sallam ako kiilanan ala yaate kiinanni ala bato mi yalon ko ay moliyamar wolla wolon kiilale ba karandila a ñanta kele ñaami ako kila sa sallam salo atliya inani asaltan to kaba ako mole ala dewi kasaliyan ale salo nyama ay hinjo ke ay bandi ako al hinjo jube na kinyami ale ajo nyama ako kono alabato alabatu mi yaalon ko mobakela ibe kiila sallah alih sallam la ñin kaala abe kela ñaami ako walanga alqur'an o kono ala ko je kiila ye min naataale aɗa sika a yaalmulan fatande min na aɗa yaaltuɗi kon su fekkente ne laa ilaha illallah mooy yàlla lañ war a jaamu muhammad rasulullah mooy muhammad mooy wone ni ni jaamoo yàlla loolu ngay dégg kon ñu ne alquran ak sunna kon benn bi mënul dem bàyyi benn bi kon du jaadu ci jullit yi ñu bëgg ne yàlla kese soo ne lii sunna la ñu doya dil ko
ako min mo ñin kuma kawti wikkata la ilaha illallah ako kiila sallah sallam ya karandi le kaatu ako ala mota batunola damanta imaju be kiila sa sallam ya karandi ñaami ako la ilaha illallah to mota sabatindinola fonamanke kiila sa sallam ya yamar ñaami aya karandi ñaami ako kon ñin kuma kan kilintanola a kam ñotuje woɗum wiwo idalla woɗon kiilaya yamari ñaame moɗe andi o ñaama su ko defee jullit bi bu fekkee dafa bëgg a dund diine dëgg dafay boole ñaar yépp loolu moo tax ngeen ñu dégg yàlla mu ne atiullah wa atiur rasul topp leen ma man yàlla waaye topp sama yonent
ako niyaje ɗiɗo ñin mota a balludinola fonamanke ñin fulol woleta wolon monti kabula alanoma anin kiila sallallahu alayhi wa sallam ako moola diino te sahiyanola fonamanke ala foneya yamaroke ñaami kata ate ko albulante alanoma anin na kiila sallallahu alayhi wa sallam
topp leen ma man yàlla topp sama yonent beneen aaya ñëw ne wa man yuti ar rasul faqad ata allah képp ku topp yonent bi topp nga yàlla mooy kon topp leen ma man yàlla ak yonent bi ba pare yàlla ne waat ku topp yonent bi topp na ma man yàlla
ako aya ɗon ɗo ala ko albula kiilanoma momo bulata kiilanoma i bulatante alalnoma ako e mi yitandi wolom ala ka kiila sa sallam la dambe yitandi molla ñaami wolom ate ayatele ki musilmol kan atele naata kayi ndino karandi kono ala sunno mol ñanta bulalawnomale anin kiil ala la yamaro moo tax yonent bi aleyhi salaam taxawoon di wax ña nga xam ne ñoo doon wootewu ne dañ ko bëgg moom yonent lan la leen yàlla wax su fekkente ne yéen li ngeen di wax dëgg la qul in kuntum tuhibbuuna allah fattabi'uni kon koo gis muy wax ne man bëgg naa sunna man sunnit laa damay dund sunna xool ko ndax moom fan la toll ci santaane yonent bi fan la toll ci san tere yonent bi su fekkente ne moom li yonent bi digle mu ngi ci guddeeg bëccëg li yonent bi tere bàyyi na ko kon de li yàlla wax dëgg la qul in kuntum tuhibbuna allah bu fekkee ne li ngeen di wax dëgg la ci yéen man yàlla bëgg ngeen ma lu ngeen def mu ne fattabi'uni topp leen ma man muhammad ako kano ala mone yo ko alquran o to ko momo ko ite bulal ite ite- ye ala kanune ako ye bula kiila sallallahu alaihi wasallam noon akondel musilmol sayi nden tan faw sumannaleŋa juwentel ɓe tembe jumal to kiilale yamarol est ce que kiilale yamarol tel bakonole ay min yamar no ɓurŋake ɗum ɓe ɓularanoma le ani walla ay min fotade mi fon fotatama le ako momondi ite ñante fon sumanna wo yamaro kono kon mbokk jullit yi borom bi sax dafa tere jullit yi ñu wuuteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax wuuteeg moom mooy wane ne li mu indi jëloo ko wuuteeg moom mooy santaaneem faalewuloo ko santaaneem yitteelu la yonent bi da daan faji aajo su daan dem day ànd ak kenn ku ko gunge yoral ko ndox benn bis mu ànd ak waa ji ñu dox ba dox bi sori yonent bi ne ko yemal fii daal di jël ndox mi wàcc montagne bi egg suuf di faj aajoom waaye ci mbetteel yonent bi bu mu siggee rek dafa seen saxaaba bi ci kaw montagne bi mu- muy xool yonent bi yonent bi waxul dara dafa faj aajoom ba pare daal di jël mbuusu ndox mi jël bant bi mu daan yore jiitu dox ba egg waa ji fi mu ko ne woon xaar mu fekk waa ji taxaw mu jox ko mbuusu ndox mi mu téye bant bi ñu continuer di dem biñ doxee ay jéego yu gàtt yonent bi geestu xool ko ne ko yow dafa mel ni fi ma la bàyyi woon ne la xaar ma fii taxawoo foofu dafa mel ni siggi naa xool la nga may yër mu ne waaw waaw mu ne waaw loo ma doon yëree mu ne damaa bëggoon xool nooy toogee ma toogee noonu bu ma mbir mi dabee ndax yàlla moo wax ne fal yaxzari alladina yuxaalifuuna an amri an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim
ako wato do sotta kabula kilala yamaro no ma ina fas to nyami ako jamano do sotta abetama silola ani sai bo do le betamo itata fo mulo dula do do kilala da keno do ka fol nyama ngame ali ma ko ya akundita kurkata afindita wala afindita adada ay muto sikaw bula adada fukka hajo jara abije to akonu kendu ye mbatu jang ibeno lori dama kay mbatu jang ko ningana ako kilabe a ajo jara paye bandi ay santo be montane santo akaye kendu dije to ko bayo kola kila ya ajo jara paye bandi anata kendu feje e silomu de bitala anata ni ka ka paye ko bari de amonta ko ngejele kayo ke ɗum ka ha ni tatateede pour que yo bat kam ma saabu wolom taate yimɓeede gasi ñaami fonde fana ni kuwoye muta fana gasi o ñaama ka ɗum alaleya ko alquran o to ko ali ke ali kekum alkana waali ani kiilaala ka ɗum allah waali o ani kiilaala aɓe yankankatole wululaali kon naudu billah min dalik alquran moo tere ñu wuuteeg yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne yéen ñi nga xam ne da ngeen di wuuteeg yenent fal yaxdari alladina yuxaalifuuna an amri ñii wuuteeg yenent bi nañu mooy tandiku yàlla mbugal leen àdduna mbugal leen alaxira kon moo loolu moo leen doon ne sunna du lu ndaw ndax jaamu yàlla yëpp mboolem lépp lu ñuy def yonent bi moo ñëw ne nii lañ koy defee mbokk yi kan moo jàngale ni ñuy tuddee doom kan moo jàngale ni ñuy sange néew kan moo jàngale nuñ koy suulee kan moo jàngale nu jigéen di téenjee kan moo jàngale nu nuy lekkee nu nuy naanee nu nuy soloo lépp ci diine yonent bee ko jàngale kon ndeke bëgg yonent bi mooy nga mbir mi yonent bi jàngale nga def ko nim ko jàngalee ndax kat diine mënoo cee def dara lu yonent bi jàngale wut tey nag li ñu sonal mooy yonent bi lim nu indil au lieu ñu def ko dañ koo bàyyi defi keneen lu mu wax dañu dem ci ay armeel ñu suul néew bi ba pare ñu commencé joxe ay ñaan te léegi li doy waar mooy da ngay gis sax yenn saa yi ku dogu ku dogu ci ñaan bi ana diw mu ne maa ngi ni mu ne taxawal fii ci bopp bi ana diw mu ne maa ngi ni mu ne taxawal ci tànk yi ana diw taxawal loxo ndeyjoor ana diw taxawal loxo càmmoñ ñu ne ki taxaw ci bopp bi jàngal yaasin ki taxaw ki taxaw ci jàng tànk yi jàngal suratul fati ki taxaw ci bobbee jàngal suratu sarx ki taxaw fee jàngal suratu nasr bu neexee yàlla bu ko neexul dina dugg aljanna loolu ban sunna la
ako ka ke kuy kila sallam kana wali ako alal yendel man purundi kila kana wali agam ma ko la fanda purundi alal kila kana wali ako alal yo yamarodi kaatu a ko ŋa sila niŋ kilaale waaliyo la kaatu ntelu niŋ kilaale waaliyo baarol to ala yaamatuŋo to niŋ maŋ kee kuŋ a be fitinoo le jindilaŋ kaŋ walla yankankatoo miŋ ye a loŋ ko a be koleyaa le a ko miŋ boo yitanta wo loŋ kiilaa sa salam wo le karandiroo ke moo ñanta niŋ kuli niŋ ye diŋ wulu i ñanta kulli la ñaamiŋ kiilaale ye a karandi a ko futuu sitoo a ñanta ke la ñaamiŋ kiilaa sa salam ye a karandi niŋ moo faata niŋ kewo faatuta ala musoo ñanta furjaa ye a ke la ñaamiŋ kiilaa sa salam wo le ye a karandi ako kono alabatu o alabatu wi yaalon ko hadamadium batele mi musilmaya kono adde sahiyanola ko namanke kiila sa sallam yakarandi ñaan ako ka ɗum mbi molemin je wolom kiilala karandiro molyo tugele ga kuuɗol sika min manke woti mbokk yi dinañ fekk
kaburo to ako komi nimo fatata nimo konan fata kiilal ya yamar mol ñanta baade kele ñaami ako bari laalol to fana i kaajele ni moo faata ye bandi ya baade i semmooje a yiilu woy kafoo kono ako doyeloo a kunnatoo la doyeloo a sinnatoo la doyeloo a bulmaraa la doyeloo a bul a bulbaa la ñiŋ kiliwoo kiliŋ a bee yaamar la kuriye ken karan ñin furendo ye a ko min ba kuŋo to wo isaabo ye ko suratul yasin karan min ba a sin mafona isaabo ye ko suratul fathi karan min ba bulbala isaabo ye suratul sarhi karan min ba marala isaabo ye suratul nasara karan ye a ko ni yo karan fo ye bandi isaamo ye moo ko jeewo kafo kono ko naadiyata ala ye amandiya ye ñiŋ ke dum bi dun na aljannat subhanallah mbokk yi te loolu seytaan moo koy def ci ñun di nga fekk tey ci julli buñ jullee ba pare nga gis kuy rëdd basang def nii def nii rëdd di nga gis kuy rëdd asamaan bi def nii di nga gis ku ñëw rëdd miir di nga gis ku gis dara raay def ci kanamam loolu yëpp yenn saa yi nga ni benn waa waayo lii nga rëdd nii ci suuf nii dessin ko foo ko jële mu ne laa ilaha illa kooku sama benn kilifa moo ma ko jox sama benn paa moo ma ko jox sama benn nangam moo ma ko jox léegi yéen ñi ci jàkk ji maa ngi leen di laaj paa boobu joxe rëdd yooyu kilifa googu joxe ñaan boobu ak yonent bi joxe ñaan bi ñetti ñaan yii ban ñaan moo ëpp barke paa bi wax nañ def lii kilifa gi wax nañ def lii yonent bi wax nañ def lii ñetti yii ban la ci yàlla santaane loolu mooy sunna kon benn xoolal li yonent bi indi moo am barke moom moo jóge ci yàlla ndax yonent bi la yàlla yónni te ba pare yàlla mu ne lum ñu indil jël leen wa ma ataakumu rasul fa xuzu kon sunna yonent bi alayhi salaam kenn waru ko dellu ginnaaw kenn waru ko tuutil dafa war a rëy ci nit lu tax mu war a rëy ci yow parce que fan la jóge ci kan la jóge ci yàlla la jóge yàlla mu doy ko ba mu jox nit mu jox ko ku toll ne Muhammad mu ne ko demal nga yóbbul ma lii nit ñi nañ def lii su fekkee dañoo bëgg ma gërëm leen nan ma defal lii kon mbokk yi ndax loolu dana jaadu ci ñun ñu koy doyadil wala ñu koy tëkkal ak lu keneen indi lu maam indi lu demba indi lu sàmba indi léeg-léeg nga ni nit ñi lii la yonent bi wax ñu ne la inna wajadna abaana ala umma
ako abo kono kila sa sallam la karandiro kono hansa ikaje le dol ka kula ikka kudol ke min manke woti ako ikaje le mosi salina ye bandi ala saltula ni be isaja ya bulo sika ya isi wasa aka fonsa fendi fendala ji dol se bulo sika ya te santo ibe fensa fela ji ise doje ay kuɗo ke mbiyalon ko niyañinin ka munanda iteyinin ke amaro sakoy ko ndela keba kende kareleyini dina ko ni saltanato ako ite moɗoje o fanan koye ko ndela mo karleye dina pour ni gam bandi salwolan kati ka to ku kendolo ako baɗimon kila miyalon ko atele salo karani aye bandi ako naale bandi salola aye min karandi salo ñin nabande naaleyake ako est ce que wol man barko soto ka tambi ñiken ɗon tan ako musidmo ɓe dako tañina ko wole barko warata ako fulan jam alale ko mole ko ni kila e min natale ala sika aya min fatandala ala bula ako wolatinna kila ala sunno mo mañanna feyandila mo mañanna fula ñimu sunno dammanet ka ɗum ñanta warandila le ñanta buñala le ñanta
kon sunna su ngeen déggee ñu koy wax pour ñun ñu xam baat bi comme arabe la dana jaadu ñu xam lan lay tekki ci sunu làkk yii sunna mooy ci làkk liñ ci bëgg mooy aw yoon walla sóobuwaay walla aw doxalin kalimatu sunna at tariq أو المسلك أو المنهج وكذلك هي الطرق أي الطريق mbokki baatu sunna li muy tekki mooy aw yoon
ako baaliol ñin kuma kaw mi mu kaa fo sunno ako kuma kaw mu arab kaw le wo kuma kaw ka min fasaren tol la kaŋol la kaŋol miliyaalo ko a siyata mol ka kumol ka ka kaŋol to wolom ni man yaato no mol ko silo exemple i ko silo a ko wol ka sunna wo ko wole fasar
mu ne yenn saa yi nga dégg ñu ne benn waay imdi ala sunna sunanik doxal rek ci sa yoon wi nga nekk mu ne ba tey dana nekk at tariq al mutabba yoon woo xam ne dañ koo topp sawaun kanat hadihi tariqa mahmuda aw mazmuma yenn saa yi muyul yoon woo xam ne nit da koo topp mu nekk yoon wu baax yenn saa yi mu nekk yoon woo xam ne nit da koo topp mu nekk yoon wu bon wala doxalin doxalin boo xam ne nit da koo topp mu nekk doxalin bu baax wala doxalin boo xam ne nit da koo topp mu nekk doxalin bu bon
ako sunnoñi ako isa fasat molla kawna façon fulala wolam tilimola kono sayin sayin ko isa fasat ka ko silo ako sotarindi fulanjam wolam isa ko tamandir ña mola ko tamandir ña ako isa je mose tamandiro ke tamandiro la mi yalon ko mon be sa ko jimu ku kendole baro ku kili o tamandirñal a sake façon do ñama mon sako ko ñim manque fu kendol ako kon sunno woka wole yitandi a a tomu wole waa sunna ñoom noonu la ñu firee sunna bu fekkee waa usul ñu ne liñ ci namm ci sunna yonent bi alayhi salaatu salaam bu ñu déggee nit ñi di ko wax xam nga ñee dañ ne aw doxalin la waa nga fekk yonent bi ni mu doon doxalee nga doxalee noonu nga fekk yoon wi yonent bi jaaroon nga jaar noonu doxalin bi mu doon doxal mooy ni mu doon jullee ni mu doon wooree ni mu doon tëddee ni mu yeewoo ni muy jàppee maanaam mboolem lu mu doon def ci jaamu yàlla yi loolu mooy doxalin wi yow nag nga tànn doxalin woowu wala nga dégg ñu ne kii ab sunnit la mooy lépp lu muy def mu ngi ko jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam doxalinam yépp guddi ak bëccëg mu ngi koy defee ni ko yonent bi defoon pourtant loolu suñu téere ndaw yi sax lu ñu jàng ci dëkk bi nga xam ne bi ci njëkk ci fiq mooy laxdari loolu la njàngal dafa am ab julit wala yaxillu lahu an yafala filan xata yaalam hukm allahi fihi su fekkee xamu mu ne wa yasal al ulama mu ne booy roy wa yaqtadi bil muttabiina bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gis nga même fii nii loolu lan jàng a daganul ci yow nga def benn mbir te xamoo lu ci yàlla wax daganul ci yow nga xëy rek def dara ñu ne la li lu ci yàlla wax nga daan waaye man de damaa yaakaaroon ne déedéet ñu ne boo xamul mu ne wa yas alal ulama gis nga kon sooy laaj koy laaj ku xam fas alu ahla zikri in kuntum la taalamun wa yas alal ulama waxul nga wa yas al kullu man laqiyahu koo gis rek comme Sénégal lu am man jànguma waaye jànguma waaye déedéet jàngoo noppil loolu mooy wax bi su ko defee ñu daal di laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo jàng lu ci teg mu ne booy roy nag wa yaqtadi bil muttabiina li sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sooy roy mu ne nga roy ñu topp sunna yonent bi
ako sunnoñi a fasarobu ñiiti ko kiila sallallahu alayhi wa sallam la tamandir ñaan ala diino ala ye tiimin a ye karandiñaami wolom molu ye bula komi ate ye karandiñaami a ko wolomu sunnooti a ko kaatu kiila wolu ye alikindi muñanta salo kela ñaami ala bato ala bato muñanta kela ñi misilmaya ko kiila ye karandile muñanta kela ñaami a ko a boo kono molla kitabul mi ye lon ko i benna banko to fon a siyatale a ko min mu lahdariyo ti wo ye fo le laaɗo to kaa fo ko amanda musilmo e aye kuukeye misilmaya kono fonaamake alala kiitiyol ɗon jeel ako naamariyo moono alala kiitiyol a moono wolano min man karan iɓe kuukelaji ɗino kono ibita molle yinin kaalan min karanta ako kono amanda moye musilmaya kono ye kuubaara je walla ye kuufa je feŋ mi ye lon ko iman fellon je ni maano fanan ibita katala molle la mire ku kalamuta ya kuwol fasari ako bari kana tele ñum bankoto dolli je i kana iye kuwol ke ni ye bandi ni ye ñin ka ñin ɗum iko ndelde nga taraten i kaaji suññee ci waa hadis waa hadis ñoom nan lañu déggee sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ñooñu dañoo jël hadis daf ko sunna ma nusiba ila nabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min aqwalin wa af'alin wa taqarir aw sifat xalqiya aw xulqiya waa hadis ñoom niñ gisee sunna mooy lépp loo xam ne dañ koo askalane yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañ koo moomale yonent bi ci ay waxam lépp loo xam ne yonent daf ko wax rek dugg na ci doxalinam duggali na ci jëfam wala mu nekk ay jëfam yoo xam ne daf ko def lii daf ko wax kon lu ñu war a jël la lii daf koo jëf kon lu ñu war a jël la wala mu nekk taqaarir loo xam ne daf ko saxal defu ko waxu ko waaye ay jullit dañ ko def ci wetam weddiwu ko waxul lii bon na mu daal di koy bàyyi noonu wala mu nekk benn melokaan ci mbindam bi ko yàlla bind ah wala mu nekk jikkoom lii la waa xadis wax ne moom mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ako hadis ɗumkel amrika foga hadis ɗumkel ko yettele sunno fasartari ko sunno munati wolon kiila sallllahu alayhi wa sallam e fen fen yamari walla ay fen fen ɓaara walla moye kuuɗo ka ñaalañi misilmaya kono aman kuma foje ayede walla ata kiila sa sallam le mankutoɓe ñaami ako milmu sunna ɗum e hadis ɗum kelti wone sunno fasartani
mu ne waa fiq moom bi ñuy firi sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañu ne maa yuqaabilu alfard aw alwaajib min al umur al mustahabba aw al manduba mu ne mooy loo xam ne dafa jàkkaarloo ak farata mbir mi nga xam ne dafa jàkkaarloog farata wala mu jàkkaarloog loo xam ne dafa war ci ay mbir yoo xam ne dañ ko bëgg wala dañ ko sopp mu ne bëri na lu ñuy dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam da doon def mbir yii ndax daf ko bëgg wala daf ko sopp loola tax ñu ne jullit bi bu jógee pour def loolu dañ ko yàlla daf ko ci fay tiyaaba lu mu mën a doon soo ko defee da ngay am tiyaaba kon li yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon def mooy loo xam ne yow saa yoo ko defee rek yàlla daal lay fay waaw kon loolu naka la nit nit di ko déggee tey jii kenn ci ñun mbokk jullit yi li tax gaa yi ci bëri ñaani yonent bi di joxe wala jëf yu ñu joxe ñu tax ñu bëri duñ ko yitteloo te yenn saa nga rek benn waaye ne wallahi gis nga ñaan bi wala lii xor bi téere bi boo ko takkee doo tàqalikoo ak dërëm doo tàqalikoo ak dërëm nga gis waa ji jël ko tey kenn ci ñun bu yonent bi saa salaam waxoon ne ñaan bi ku ko ñaan saa yoo dugalee sa loxo sa poos fekk ci 10 000 dinañ ko mokkal wala duñ ko mokkal ah dinañ ko mokkal voilà pourtant loolu la loolu yonent bi alei saa salaam wax muy dëgg ñaan bi saa yoo ko defee wala jëf ji saa yoo ko defee la ca yonent bi digi am nga ko Cheikh Wahid Abdou Salam Bali dafay wax ci téeréem bi alwiqaaya nee na benn seytaan benn jinne dafa dugg ci benn jigéen ñu indil ko ko mu koy muy muy moom mu koy mocc di ko defar ruqiya di ko defar ruqiya ndaw si di yuuxu jinne bi di yuuxu ci ndaw si di yuuxu di yuuxu ba càgg jinne bi ne ko yow loo bëgg mu ne ko nga bàyyi kii bàyyil jàmbur ci kàttanu yàlla bàyyi ko mu menacé seex bi ne ko su ma ko bàyyee ci yow laay ñëw nga den saay def ne la koy def mu ne ko almuhim ci mën ngay ñëw ak ci keneen ngay jëm sama yoon nekk ci damaa bëgg kii moom di nga ko bàyyi ba ci àgg rek jinne bi daal di jooy mu ne ko léegi looy jooy mu ne damaa xam ne su ma ko bàyyee sax du ma mën a ñëw ci yow mu ne ko lu tax mu ne ko ndax yow bi nga xëyee def nga laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu lmulku wa lahu lhamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir fukki yoon cheikh bi na ko sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam
ako kabula kiila saa sallam lay yamaronoma woloma ala sunnote ay nafa min soto ako nafa warta nafa mi yalon ko moma dandulalo ako aɓe misalol ɗilawol kono ɗomon ɗi ako ni mo tata itata mo feeji aye fen safe aya diila ako e liyeñum siti wato wati ɓe koɗo sotolade ako walla isitamo feje akoye koye ɓe fenkanninga indile ɓe tankala walla ɓe kujama min keta duniya nafati ba sotolale ako kila sa sallam aye fen karandi yeɓulala karandironoma walla aye fen kanu non akate akoye yiɓulata wonoma ala ɓe dola balaji kula wolon kiilaya kanu no ñaamin pour hayati walla ay baaro ñin ala taala no ñaamin ayati ako ala be joona ñin baraji fulol beelal aka be misalo do fola min keta lonna do ti ako musidolo nene setano ya boyni ya samba feje pour ka jaar mais jaaroro min mi wolon ka jaar alqur'an o la ako ten ɗum ɓe aɓe qur'an o kara ona ka qur'an o kara ka mocco ka hein? ka moso wala i ba moso la muso ɓe jinno min ɓe no muso bala aɓe wuurla ako kendu ye ko kendun ka ye kamonel wuuri aka yen koye lafa munel la kendun ka ye lafale ye ñim bula ye ñimin muta aka ni nga ñimbula mbinaale tele feeje kendun ka ntemolon de nte ɗum naadiyata yenande feeje walla naadiyata yeta ɗo feeje molon bari lafale ye ñinne bula ako kendun continue ta kendun continue ta ka ka ka ke- ka karan ka kendun musindiuñum moso jinnoñin siñakinaaya jowo ka kumbo ay jinno ñinin kaye kamunel kumbo jinno kaye ko hani ŋañi musindumbula ŋaalon ne tinano la ite feeji kaatu ite kabirin fano keta ye kiila la duwaran tirin kara mi ye lon ka ayole yamarnu mol la ni ya kabiri ya karan ne siiña tan na dufukiya a ye karan ne siiña tan a ko wo sababu o kama ala ye te tankale ntel jinna kurunte kunole ma sababu jumala walanna kelɗen ko kiila sallllahu alih wa sallam ye toña fo momon dimbulata ala yamaronoma ala karandirolnoma ala ɓe tan kandila kuja walla ako abono fisomo ñinnati kon danañ laaj suñu bopp ndax nun kon war na noo xam sunna wala waru noo xam sunna wala war nañ koo jàng wala warunu koo jàng tontu bi mooy mbokk yi loolu lu jaadu la kenn mënta nekk jullit kenn mënta def santaane yàlla te doo ci boole li yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon def mënul nekk kon ça veut dire que islam bi doo ko dund ndax yonent bi moo ñëw pour jàngale lislaam looloo tax ñu war a jàng sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci li tax ñu war ko jàng mooy ziyaadatul iman bi anna muhammad bi anna muhammadan rasulullah wa tahsilil yaqin bi nubuwati nabii muhammad ci jàng sunna yonent bi ci la ñu yokkoo iman ngëm yàlla ndax yonent bi lépp lu mu jàngale daf lay yokk ci yàlla ndax yàllaa ko yónni moo tax yàlla mu ne wa man yuti in rasul faqad ata allah qul in kuntum tuhibuna allah fattabi'uni ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسول munul nekk yéen ñi gëm yàlla bu leen jiitu yàlla ak bi yonentam kon olof yi dañuy wax ne sareet du jiitu fas xam ngeen sareet ah du jiitu fas chaque jour lan mooy jiitu fas bi mooy jiitu sareet bi nekk ci ginnaaw yàlla ak yonentam ñooy jiitu nun nu nekk ci ginnaaw kon li tax ñu jàng sunna yonent bi mooy ci la ñuy leeree ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent la yàllaa ko yónni waaye ci la ñu amee yaqiin bu leer ci dëgg-dëgg moom yonent la
ako wo konontol musilmol ñantan fon ñinin kalan ɓe tembe jumale to wo kiila sallllahu alayhi wa sallam la sunnol ako wo musilma o musilma ñante kon ñinin kala ɓe tembe jumal lawol ako a wajibiyata musilmol ɓeema yo kiila sallah sallam la sunnoñin karan katum sunnoñi moote ala bato kela ala batoñi e say ay ay ay kea ay kalsa foni yatara ima imate komi kiila sallah sallam ya karandi ñaami walla aya ya mari ñaami ako katum a bonofis foro wolon ka kiila sa sallam la sunno karan aɓe limaneyale kafulantol musilmol ma katum ala le faŋ ye a fo alqur'ano kono al bula ñiŋ kiilanoma nte ala ŋa lafa al la a ko al bula naŋ ko al lafonte ala le al bula kiilanoma ala ye a fo aya do fanaŋ to ko nkaŋ ke kuŋ niŋ kiila sala sallam kana waali kumakaŋol to walla aniŋ baarol to kaatu niŋ maŋ ke kuŋ a be fitinoo jindilantol kaŋ a ko aya do fanaŋ to ala ko a maŋ daa musilimol ye ye kiila saa baŋ baarol la walla kumakaŋo la mbokk yi ci jàng bi ñuy jàng sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci la ñuy xamee yonent bi ban personnalité la incarné benn waay day wax ne yonent bi même su ko yàlla yónniwul woon ponkal la même bu ko yàlla yónniwul woon ñu ne lu tax ñu ne ndax alquran bi ci moom la wàcc ndax bi àddina bi commencé ak léegi gis nañ fi ko fi indi téere bu mel ne alquran kon alquran bi bu ko yàlla di indi ci yonent bi la ko jaarale mu ñëw ci ñun kon ci kan la jógee ci yonent bi ndax gis nañ kenn ku fi indi lu mel ni moom kon bu fekkoon ne moom kenn rek sax moom moo wax alxuraan bi kon moom ponkal la rawatina nag ba alxuraan bi jógee ci yàlla tabaraka wa taala kon jàng jàng sunna yonent bi moo lay wan ne yonent bi mooy kan tey jii fii ci ñun dañuy gis kenn ku mokkal alxuraan mu mokkal ñaata njàngin yi juróom-ñaar yi mu teg ci buxaari mu teg ci mus- muslim mu teg ci abu daawud mu teg ci tirmisi mu teg ci nisaa mu teg ci ibnu maaja rek ñëpp jommi waaw te téere yi ñu mujjee wax muy kutubu sitta ci kan la jóge ci kenn ki mu yonent yàlla muhammad alay te loolu lan la ay waxam kese jëf yi ñëwaguñ kon jàng sunna yonent bi moo lay won yonent bi ban personnalité la te boo jàngee sunna yonent bi lu mu ci loo ciy teg mooy nga xam alquran nga gis yàlla tabaraka wa taala cër bi mu cëral yonent bi hatta sunu borom li tax jullit yi xamuñu kan mooy yonent mooy ñàkk xam bu ñu xa ñàkk xam alquran hatta yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yëpp da ngay fekk ci alquran yàlla di jaar seen tur ya ibrahim ya musa ya nuux ya ya ndax jàngeen ci alquran ya muhammad ban saar la yi ko la yàlla wax amu ci yàlla ci boppam dafa wekk yonent bi loolu mooy wan ne kon kii personnalité bu rëy la incarné kon mbokk yi laa budda ñu jàng sunna yonent bi ndax ñu xam saxsiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam
ako kakila sallah sallam la dambeero ako ala le foloyo karani ako pour ɗum moota ha kila sa sallam la dambeɗon na fonamanke yaala sunno karam ako ni ye kila sa sallam la sunno karam wolani ɓe kila sa sallam la dambeɗon na ako ka ɗum min ka o kami itani wolam hani ko dole ko alqur'ano e sunno al sunno karam ima ima imake ako o kami itani won hana alqur'ano ni ima comprend ako ka ɗum ni alqur'ano fan karam ya comprend fan fan iwalla sunno karan na comprend fan fan iɓe alqur'an o moyrani par ce que sunno wonnata ñin ka alqur'an o ñin ka fasar ako ka kila sa sallam la dambelon ako ni ala sunno karan iɓe ala dambelon na wolto fan fan fan ali mero mako beneen bi mooy jàng sunna yonent bi aleyhi salaam lu ñu defaat ci ñun mooy ñu xam dundinu yonent bi mbokk yi su fekkee dañoo bëgg a xam yonent bi nu mu doon dundee dañuy dem jàng sunnaam danañ xam yonent bi naka la doon dundee naka la nekke woon ak soxnaam soxna yi naka la nekke woon ak sahaaba yi naka la yaree doom naka la doon defaree jullit yi naka la leen doon toppatoowee naka la doon attee naka la doon tëdd naka la doon yeewoo ay dugam ak génnam yépp suñ jàngee dundam moom yonent bi naka la dundee loolu lépp mu ngi ci téere yi dara du ci leer waaye fu ñu mun a xamee loolu mooy ñu jàng sunna yonent bi
ako kila sa sallam la baluña ako fentiye ala baluwo kono miyalon ko ima karañ ama karañ ako pour ŋolon foŋa ala sunno le karan ala sunno niyo karan anala musol ka ke ñaame a kela ñaame aka domoro ke ñaame akka kuwo ku ke ñin baluwo duniya kono kila ya ye karandi le fa a seneyata ako hadamadiŋo tolonnola nak fo namanke ye ala sunno karan ni ye ala sunno karan wotumo iboo bee je la jeel bu ñu jàngee sunna yonent bi aussi danañ xam azuruf allati marra biha danañ xam temps yi nga xam ne yonent bi aleyhi salaam jàll na ko su ko defee ñun ci roy bu ñu koy roy ñu mën a jàllale li mu jàllale lan moo tax tey sunu mbir yëpp gàllankooru c'est parce que sunna bi moonu réer tey bu sunna yonent bi leeroon ci ñun rek yonent bi temps yi mu romb xoolal màkka ni mu fa nekkee woon yéen ñëpp xam ngeen ne yonent bi màkk la juddoo xam ngeen ne fa la màggee waaye xoolal mettit yi mu fa daj ba bi muy génn dañ ko bëgg a rey yàlla moo ko ne bul fanaan tey màkk mu jóge fa dem Médine dëkk ak yahud yi ba ni mu sampe islaam nga xam ne génnul àdduna lu dul islam bi samp na mais naka la def ba jàllale diine bi naka benn nit benn nit keroog bu mu taxaw di woote am na ñeent fukki at mu nekk kenn waaye naka la def ba jàllale lii naka la def ba lii yegg si fii fan lañ koy xamee muy ci sunna yonente bi alayhi salaatu salaam suñ ko xamee ñu nit fu ñu dem dinañ mën a jàllale li yonente bi yor mais buñ jàngul sunna duñ mën a jàllale dara parce que mbir yi mënuñu ko def par làmbatu yonente bi làmbatul woon daf ko teg ci lu leer nañ moo tax mbir mi daal dem
ako wo kami itandi wolon kila sa sallam la sunno ako labudda musilmo ñanta lon nati ako ni yaaje musilmol ɓe bata jama kono ila baluwol kono ila baluwol koy kono wolom ilala sunno karambaliya ako kaatu nimo karam mbajelale ko kila ala baluwo ay kolya kuwo min sota kono moɓe yaalo ne ko a wuruta makkale ako bari ye fitno min kaye je ye kolya kuwo min laala je a batawta tata madina ayo kolya kuwo min taki je ako ayo tamandi ñaami fa ye misilma misilmaya londi ako hadama ɗum musilme o nak itte itte itte fonko sotora hmm? ite ite tamandiri ñaak te te te sen yala fonama kiyo kila sa sam la sunno kar ka dunya karare ibaje la ataya tama dali ay ko ya ko ta kinami ibol beje la ifana beke kun na ibaje la ila kiliro pour kata ka mulki ala la silo kan ibaje la be sonia lay mal beneen bi li tax encore ñu war a jàng sunna yonente bi mooy an yajid al insan sura lil masal al a'la fi kulli su'uni al hayat mooy pour ñu mun a am modèle jullit bi mun a am modèle xoolal yàlla lan lañ wax laqad kaana lakum fi rasulillahi nit moo bëgg ku mu toppandoo tey da ngay gis fii ci dëkk bi kuy toppandoo mbër xaw ma ndax yegg si na fii da ngay gis kuy toppandoo ab rappeur Chris Karas tubayam nga gis jigéen buy toppandoo ku bon jigéen bu bon même paa yi sax da ngay gis paa boo xam ne sëriñam lay toppandoo mbax ne sëriñ bi lay sol kaalaawu kaala sëriñ bi ba ci wax sax da ngay gis waaw mu mel ne que toppandoo wallay ndeysaan nga gis tamit ci la ku nekk toppandoo même kurus sax kurus nga gis ku toppandoo xoola yàlla lan lan wax bu ngeen di toppandoo toppandoo leen kan parce que moom moo mat parce que moom mooy modèle bi parce que moom moo wone mooy doomu aadama boo xam ne almasal al ala képp koo xam ne da nga kaa indi ñu war koo toppandoo suñu tegee yonent bi mu daanu képp koo indi bal nañ bàyyi yonent bi nañ jël ñi mu yar nañ jël Aboubacrin ndax yéen waa Sénégal mun ngeen am kenn ku mel ne Aboubacr yonent bi nee na wallahi maa wataatil ardu baada al anbiya xayrun min abi bakr mu ne bu ñu jëloon adduna bi yëpp seen iman teg ci balance jël imaanu Aboubacar teg ci balance mu ne la maalat alayhi na ab imaanu Aboubacar. lan la leen Aboubacar raxe mu ne sëy un waqara fi qalbi moo tax il faut ngeen def attention si ay yi ngeen di indi fii ñuy xas yoon Aboubacar di saaga Aboubacar. naka la nit di di àndandoog jul nit koo xam ne day saaga Aboubacar xoola Aboubacar ni mu toll ci yàlla. kan moo ko tuddee as-siddiq kan. ah koo xam ne goro la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam koo xam ne keroog ba yonent bi di gàddaay li imaam doon fàttali tey ci fajar Aboubacar keroog ba ñu duggee ci xaaru Hira dafa gis ay bën bën bën bën mu dindi kaalaam xott dugal ci benn pax jël yërëm dugal ci beneen pax jël beneen yërëm dugal ci pax mu des ay pax mu dugal bi benn tànk bi dugal fi benn tànk bi dugal fi benn loxo bi pour lan pour yonent yàlla Muhammad mucc kooku tey benn waay ñëw ci Sénégal benn waay ñëw tey ci àdduna bu salte bii fekk jamono yooyu septième siècle bi yonent bi di génn keroog këram dem ci kër Aboubacar bi mu ñëwee dafa ne ko génneel ku nekkul ci kër gi yonent bi Aboubacar ne ko kër gi sëpp sama waa kër ñoo fi nekk génneel ku bokkul ci kër gi mu ne ko ñi fi nekk ñëpp sama waa kër loolu moo la ne formation bi jàll na jàll na ci jabar yi jàll na ci doom yi génneel ku bokkul ci kër gi mu ne ko ñi fi nekk samay njaboot lañ mooy duñu ay fenkat mu ne ko yàlla xamal na ma tey bu ma fanaan fii yonent bi Aboubacar ay Aysa mooy nettali Aysa nee na ma gis sama papa di jooy comme jigéen bu ñàkk jëkkër naan ko assuhbatu ya rasulallah assuhba ya rasulallah assuhba ya rasulallah ma ànd ak yow ma ànd ak yow xoolal yonente bi ne aboubacar waaw kan moo ne aboubacar dama nga préparé ji ay gëléem dama nga préparé ji ku ñu woon yoon bi kenn parce que formation bi dafa ñor ñi xam nañ lu leen war aboubacar dem uti ñaari gëléem ut ku leen di woon yoon wi génn tërëri dem ne yonent bi jiitul sa gëléem tànk bu mu gas sama gëléemu tànk dana ko suul léeg-léeg mu dawal gëléem gi nekk ci kanamu yonent léeg-léeg mu dawal gëléem gi nekk ginnaaw yonent léeg-léeg mu dem ndeyjoor léeg-léeg mu dem càmmoñ léeg-léeg mu taxaw ah kooku tey benn waay ñëw fii di ko sa di ko xas est-ce que lii jaadu na na leen yàlla yërëm ako musilmo ngaajole ko halama ɗum solata ka bula mon kamo alimma ko alamandiyamane kamo kamo yaaka voilà hadama ɗum solatala de voilà hadama ɗum solatale ka yaakamola ako abala baluwole kono aɓe hadama ɗum no baluwo kono kabi kajale temoje ako atede birkari abe yakalola ala kuwo ɓe saja akake ko kateñami iseɗoje fana minka balon busa akonde la ko kake kareleke ala kuwol ɓe abakele on ñam ako hana ala bato ko i kadol konjele i go ila moro ko ala bato ke ñami bakele on ñam kuwol ɓe i nase munu wala ako bari mbajela go ala le koloya ko alquran o kono ko nalɓe yakala ali yaka kilama sallllahu alayhi wa sallam ako kon o kiila kay kontol musilmol e yakala ka to alala yamarolo ako abo kono min mum kilanto sallam ako ni kota wona koola ngata molto mbiɗe alon ko ayolde gulu min maala sahibol o sahibol ay mo kilisi kadi min keta aboubacar sadiq ako aboubacar ala kilanto sallam le kaye ko kako ako ni aboubacar no limani ati ka yalani balance o karakiɗona ye musilmol beela limani ati ka yalani balance o karaɗona ako aboubacar la limani ala musilmol ɓe taboyndi ala ako kamunel ñitan wala ñi mummole timi yaalon ko limane ala karola kila sa sallam la karandiro ala kuwo ɓe a yamutanu ñaami motike ɗi yaake ɗumo ñaam wala na ala yaajo ɗum kuwola ako aboubacar lumbinna kila sallah sallam ñanta bola makka kata meɗen ala ya yitandala ako adata ɗum aboubacar no suwa kono ako aboubacar e ko momo mantare ɗum sukono koni lappare ye gonɗi abidjanɗen lappana kanamin koye ako aboubacar nata ko kila sallah sallam e ko janna sukono kolɗam manne mbiya ako molte munel moyino ko kumoɓe akoye tabi moyno je woɗon ko aboubacar yaala nimayal surulenu imo kake satarlal ni ye kuuje imo kaako im ka kuwo ko bimmanke toñaade ako wotumolon kila sa sallam naata ko aboubacare ko ala ye yamalle pour ngabo jam ngata madinatul munawwar ako aboubacar naata woye ñonkomo ñini mi yaala ko kilaɓe sellawole kam adefa ye ñonkomo ñini ako wo ɓe mi yo yo wo kilama fayni bar aya kulunu ñaami a lonno ko kiilatan sallam ɓe soolala yinnale aye beeñini ako lumbinnayɓe gola kata madina fana ako aboubacar ko kiilaye ko wila ñonkome ya sifa o sifa gonɗi na ñonkome binala aya sifañi saare ako walanga kabiri bitala ikka aboubacar de akala ñonkume borondi kiilatan sallam la tuɗwama toona asa borondi ɗoɓi je a ñaato ɗoɓi je ayta a koomala ɗoɓi je ayta to ñaato aya lo kabatu ako kam yiɗitandi wolom ñin aboubacar nimmol sonota duniya kono bi i ko aboubacar le ne i ko aboubacar te musilmoti wo aboubacar wonten fenti ako womol ñanta wolle la ko juɓela wol wolmo ñaalilete musilmol ko mbokk yi kon jàng sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci lim nuy indil mooy ñu mun a am modèle koo xam ne moom la ñuy teg sunu kanam ci sunu mbooleem dund mbiru dund yi sunu mbooleem mbiru dund ab julit warta nekk tey koo xam ne day day day làmbatu li tax tey julit yi bëri ay façon façon façon façon façon ku nekk def lii ku nekk def lii ku nekk def lii mooy danoo bàyyi lu nu waroon def moo tax après mbiri mbiri réer da ngay gis ay jullit yoo xam ne xamuñu tey yonent bi alayhi salaam naka la doon tuddee yonent bi naka la daan jullee yonent bi naka la daan jullee néew naka la ka daan sàngee naka la ka daan ñaanalee naka la daan tëddee naka la daan yeewoo mus naa wax benn góor fële ca Dakar ñu doon nekk ci benn waxtaan rek di waxtaan ci mbirum diine man leen même ci mbirum tëdd ak sa soxna sax yonent bi dafa jàngale même boo séyee ci guddi gi soo mënta sangu jógal nga jàpp benn waaye ne jàpp waaye man damaa pare gu mbay jàpp jàpp ma de ban jàpp wala ma ne ko parce que da ngaa réer xamoo parce que da nga réer parce que yow loolu bi nga juddoo ba léegi mosoo koo dégg loolu mooy suñu problème da ngay wax benn sunna yeneen da nga dégg benn kilifa bu am juróom-ñaar fukki at mu ne la loo wax léegi nga jaaraat mu ne lan nga wax nga jaaraat mu ne loolu musu loolu musul am lu tax parce que ñàkk a dund bi ñu bàyyi sunna yeneen bi moo tax lépp réer waxtaan naa ci benn dëj ma ne yonent bi nee na bu ñuy suuli néew nit ñi dañoo war a noppi ma waxtaan ba waxtaan bi jeex ñuy dem di suuli néew bi benn kilifa ñëw ba sama ginnaaw mu ne ma nii ma gees mu ne ma wuyul ñaari paayee ma arrière ba tolloog ñoom ma ne lu ngeen wax ñu ne ah yow sànq nga ni bu ñuy yóbbu néew kenn warul wax ah man de yonentu moo ko wax de man waxuma ko ñu ne kilifa diw nee na nañ jàng nangam beneen paa bi ne kilifa diw nee na nañ jàng nangam ma ne waaw léegi yow kilifa diw nee nañ jàng nangam yow nee nga kilifa diw nee nañ jàng nangam man indi naa yonent bi nag léegi ñi seet leen ñett ñi kan mooy kilifa. après ngeen def rek yéen ñett ñi ñun ñett nañ seet ñett ñi kan moo gën a nekk kilifa rek nga topp kooku xalaas.
ako kila sallam na sunno manan na timol badata na baluwo kono ako mol ma karani ako kato ñu balu amanke tonti mi yalon ko iba momolati ñin dino amanke dino timi yalon ko ika momole walla ika mirana rek yaali ako bari dino lo mi yalon ko ika karanni yalon ako walatinna musilmol ñanta billal ye karan ye kila sosolam le sunno karan a kole ba yitandi la ila duniya balo i ka fen fen kije a bee be kela ye ala batoti a ko ka dum kila sosalam atele karandiro ke mo ñanta futuo sitila ñaami atele karandiro ke mo ñanta mo ni mo fure faata ñanta kula ñaami ni fure faata ñanta baarira ñaami a ko atele kuoku mi yaano ko musilmaya wo baatala a ko kila sosalam wole ya karandi ako fendun te solo wala fona man te ya ko karam walla yeta mol kam ya la ko le karam te yini ka akabe misal do ni la ari do ne ko kacha ako e ko kila ta sallam ko limo fata nal da ba de la mo kana ti amal be ako abo ka ko kono do na ta aya da ba kum kum ma ka e bi dam ku ni ke ba ko la ko ako amuruta ko ma yo ke babulo taraja ako e ko alkan ika telle yingi ke bal kay ha telle yingi ako e sai sai ye munel ko jan sai sai akay ko ko kila ta sallam ko nimo faduta alkana diam ala nalbita bade da aliye ako ke bal kay ko barindel ke ba kay ko nye ko mor kay ko ni kay mo faduta nyanda fin kari karan nayi ñi do fanan kaay ko namo kaari ke ba kaari ko ni mo fata ñen ñi karan naay aka tena ta koy ko say kila sallallahu alaihi wasallam wala ko ni mo fata mo be ñan de delale ala baale tulan ako tuma na ta koy ko say wo ke bal mi yo kumul fay ala jibe ani kila sallallahu alaihi wasallam jumalum ke bal no ya dara kila lum ke bal be ga bolo kila sallallahu alaihi wasallam lo kumono say nga ko to hatel parce que baral ko ke bal le am ntel miya wolum kila sa sallam wo kila sa sallam ani ni kebal jumanu kebal akai kuma kawna kono wodi ikhwani hayatuhu aw sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam samila لكل نواحي الإنسانية والاجتماعية سنة يونتي عليه الصلاة والسلام ولا ñu ne aw dundam dafa matale mboolem wàll yi nga xam ne dafa wër doomu aadama yëpp moo xam kenn la moo xam société bi la yonent bi indiwul lu manqué keroog bi mu ajee aj gu mujj ca arafaat ca naaj bu tàng ba ñaq baa ngi sotteeku moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam saaba yaa ngi ko yërëm ba dañoo dem ut benn sër daal di takk ñeenti cat yi ñu tiimale ko ko moom yonent bi mu naan sahaaba yi xuzu anni manasikakum jël leen ci man lu ngeen di jaamoo yàlla keroog ci xutba bi ba jant bi di so lan la yonent bi wax ala hal ballaght ndax matal na lan la sahaaba yi wax waaw waaw naam mu ne allahumma fashal kon yonente li mu ngi ni dafa mat olof yi dañu ne kuy xaaraani daa fekk seen kër kuy wàlliyaani daa fekk seen kër tëggut kuy xaaraani daa fekk seen kër togguñu julli di nag ñoom seen kër dañoo togg maanaam li yonent bi indi dafa doy sëkk jarta yokk jarul jëli leneen wax naa sànq ne ku la mën a jox dara lu la waa ji mën a jox lu mu ngand ngand loo ko ngandal ngandal li yonent bi indi moo gën a rëy loolu ndax yonent bi moo nekk koo xam ne li mu indi dafa matale ñëpp su fekkee mbool individu yi la mat na su fekkee mbooloo yi la mat na bu dee dëkk bi yëpp mat na kenn ci ñun du def li yonent bi alayhi salaatu salaam indi ba mu jeex taag koo gis muy def sunna tey yu ndaw ndawaan la def li mu bàyyi moo gën a bëri téeméeri yoon
ako kila sasana le min karaki muslimo le ako molta be bannola ako wala tinna baro ni min yalo ko molba kono kila le karandiro molta dafero kelale nga karan ngalo aka kolta mani nyaa ako kato kila le karandiro kam mamaki akeda mo kili baro tiyo a keta jama baaro fiyo a keta banko bee baaro fiyo walla a keta duniya baaro fiyo ko bee a yamaroo diine fiyaa lon ko fen man mankeya kon a ko to kiilanta sallam le yamaro mol ñanta karangale a ko kabula kiilanta sallam le sunnono wo ɓen tolle maakoye na duniya baluwo kono mba sambala ñaami mba ala men tangandi la kuolla kono ñaami a ko ɓen tolle maakoye a ko wolatina kila sallam ɓe ñin sunno ɗum minna atata hijjola ye bandi ako musidmol min ɓenda je ko ako alaji ɓega hijjoki ñaami alfana ye hijjo to ñaama a yebandi akoye ko albaroke ko aliyadin ka baroke ñaami ako wolanna laaɗoɓe je ako ngaaliyamare fewo fenna alake a sembo daw ka ton ako momole kuwo kuleke kila sa sallam ɓe sunno kono ye min juge wole siyat kon aman jariyata fendoñini min manke woti par ce que min ɓe teɓulu a siitale koyta ɓe ke noon ako konite min bannola i kana kuuɗoti ka mbiya lon ko a a manke woti
mbokk yi fa sunnatuhu tuqaddimu lana namasij samira sunna yonente bi alih salam moo nuy won ay modèle yu mat sëkk li shababil muslim li shabil muslim fi sulukihi l amin maa qawmi yonent bi aleyhi salaam jàng sunnaam yow ndaw li moo lay won modèle bu ma sëkk boo xam ne dafa dund ak ay nitam ba ay nitam tuddee ko al amin benn waaye nee na yonent bi maamam daf koo tudd bi mu juddoo maamam moo ko tudd bi mu nekkee ndaw waa màkk tuddaat ko bi mu amee 40 ans yàlla tuddaat ko mu nekk ñetti tudd ñetti yoon mu ne lañ ko lañ ko ngénte ñu ne ko bu njëkk bi mu ne bi mu juddoo maamam moo ko jël wër ak moom kaaba gi juróom ñaari yoon daan ne sammaytuhu muhammadan tuddee naa ko muhammad ñu ne ko lu tax mu ne li yakuna mahmudan bayna samai wal ard mu am 18 ans waa màkk tur boobu yàlla waxoon tur boobu maamam waxoon muhammad waa màkk yokku ci al amin mooy muhammadul amin jàngeen ci histoire kaawa gi ba mu daanoo hajaratul aswad bërëng waa makka defar kaawa gi ba pare ñu bëgg a reyante kan mooy jël xeer bi delloo ko ci palaasam ba ci àgg ñu ne leen nañ toog ku ñu gis mu jóge fii dugg ci kaawa gi dugg ci jàkka ji mu àtte ñu biñ ne teg ñu seen ko mu ñëw ñu ne ja al amin bi mu ñëwee keroog moom moo leen sëfee lan la wax tàllal leen sër benn ut leen benn sër ngeen tàllal ko ñu ut sër tàllal mu daal di jël xeer bi teg daan ne xeet wu nekk tànn leen ci kenn ñeent lañ woon ñeenti xeet kenn ku ñu tànnoon mu jàppaloo ko ci cat ñu jël xeer bi ba ci biir kaaba gi mu daal di koy jël delloo ko fa mu nekkoon kon waa Màkka ñoo ko tuddee al amin bi mu amee 40 ans yàlla daal di koy tuddee rasulullah kon mu nekk modèle pour ndaw lu mën a woote ndax wooteem yépp a jàll su daan yónni saxaaba yi lu muy wax yassiru wala tuassiru su daan yónni saxaaba yi lu mu wax innama bu istum muyassirin dañ leen a yónni pour ngeen yombal bal yónni na leen sax ñu dem rey nit waaye bañ delsee kanam gi changé ñu ne yonent lan la mu ne waa ji ngeen fekk ci àll bi ngeen jub ko ak ay xaram ak i nangam ak nangamam ay juram mu naan leen asalaamu aleykum ya ashaaba rasulillah lu tax ngeen rey ko kenn ci sahaaba yi ne yonent waa ji dafa ragal rek daf ñoo gis suñu fas yi ni ñuy dawee nga fas yi sahaaba yi bu ndaan daw yàlla moo ko misaal ci alquran wala aadiyaati fal muuriyaat fal mughiraat fa asarna bihi soo demee ci tafsir bi ci ngay xam fas yi nun doon dawee bi waa ji gisee loolu di leen nuyu ñu ñëw ba ci moom daal di koy dagg pa jaasi ci baat bi baat ba naaw waaye ba ñu yegsee keroog yenent bi ne leen rey ngeen jullit kenn ne déedéet yonent soo gisee mu wax laa ilaha illallah dafa ragal rek rek yonent bi ne saaba bi yow yaa dugg ci xol bi saaba bi mooy nettali dama fàtte tur bi Usaama Usaama ibn Zayd mu ne ko yow yaa dugg ci xol bi Usaama nee na keroog bëggatuma woon lenn ci àdduna lu dul mu mel ne tey laa dugg ci islaam bëggatuma woon lenn ci àdduna lu dul mu mel ne tey laa dugg ci islaam yonent bi ne yow yaa dugg ci xol bi alquran kontir bàyyiwul loolu de dafa ne wa kazalika kuntum min qabl fa manna allahu aleykum moo tax c'est très dangereux nga nekk benn ndaw sunna di daawa di agressé di xaste mushrik nangam nangam nangam est-ce que yow da ngaa judd ci sunna est-ce que yow anta wulita fi sunna voilà da nga doon baali léeg-léeg ma wax ko booy disco Dakar yi booy tàng jër man leen def leen dànk sa waay ñun bi ñu leen di génne yéen ci mbir yi ah fu ngeen nekkoon lu ngeen doon def ñun dañoo nangu yërëm leen ba tey ni ngeen mel nii kon yéen tamit yërëm leen ni ñeneen ñi moo tax soo jàngee sunna yonent da ngay mën a jël modèle mën a jël yombal xam yonent alayhi salaam dafa yombal mbir mi ba ñun ñi jot ci waaye jafeelu ko bu ko jafeeloon kenn du jot
ako hadamaɗum keyaga yaga keyaga ako hadamaɗum solataala wala na ala ko ngan yagat kilala sallllahu alayhi wa sallam ako kan min kila ako lonna ɗoya ko ya dola siña sabal ma ni kulliyolo e kulliyo ka e siña sabal ako kabira wuluta a fandinniyaati ka a denanma a tata makka kaba to aya muru muru ko siña worow la akon ni hindunde nga dola muhammad la ako kabira e sanji tan anin seyso to saate mo makkankol wole amin laaji muhammadul amin ako wo amin munale o naata wolon gannamo ako munale o saabu ako lunɗo e ɓesiri makka kaɓani buñi a boyta yaalo ko e bali beroɓe ƴe ka fo mbiye hajaratu hajaratu asod ako mbero tiwminde ɗum makka kono akoɓe kaaba kono ako a bota sayi makka kabila naani ƴewol ko koye kele kaabilo min ɓe berosi kala ayamuɗi a palato kono akoye ñoo sabaƴe ndiyamo warta dolfnaɗay kono ɓe ko tawi ɓe gasi gañi silo ɗumɓe momo koro ɗum dañi nanata ay fen tan kom ɓe ko wole kel akoye ɓe siri o silo ɓe siri ɓe juɓerola ko silo kam yanaje min bota jewolo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam waaye du ne ɗitare iko ñinta ko amintatela kudina ñimmo ka ay fen tan kom mbego woni hen ako kabira alaɗa silaye munen ɗi anatale ayala kano kala wonde aya feeni kabila naani wonde min mi sonkola ako albeji minnani amon sonkosi ay kala feeni ako ye berosika aɓurola a lalli kalaɗo ako kala kabila kari ali kala ɗon kon ɗomuta ako kali bila ɗo fanay ko ali ɗon kon ɗomuta ako kabila ɗo fanay ali ɗon kon ɗomuta ako kabila ɗo fanay ali ɗon kon ɗomuta kabin kabila nano liyo ton kolmude akoye ala sika beya sika yanati yanani place oñi beroɓe no daaɓe ako yajere jamo jamoñi bantay ɓeɓe sonkola ɗum minna atenata a yarek ley kuulami yanon ko min a sonande ɓe ɓe kelona ɗum minna min mbakelay bantay ɓeya ɓiyere moman kam fa ako kamunel itandi wala mi kila ni moɓulatala ɗum nonoma moye yakala ila dunagol o fellekol yaalaji day nekk encore an namusaj ar rai lil alimi al muslim addaai ila allah bil hikma wal mawizat al hasan yonent bi du yem rek ci nekk modèle ci ndaw li waaye bal sax borom xam-xam bi nga xam ne jullit la borom xam-xam bi nga xam ne day woote ci yoonu yàlla su jàngee sunna yonent day xam nan lay wootee day xam nan lay jàngalee ndax yonent alayhi salaatu wasalaam xoolal waa ji ñëw ci moom rek di ko laaj yaa rasulallah yow yonent lan mooy bir lan mooy mbaax yaa muhammad ma diin mu ne ko addiin xusnul xulq waa ji génn bu muy ñëw ci ginnaaw yonent bi la ñëwoon bii paa bu muy ñëw mu ñëw ci kanam mu ñëw ne yaa rasulallah ma diin mu ne ko addiin xusnul xulq waa ji génn ñëw loxo ndeyjoor buntu buntu ndeyjoor ñëw ne yaa rasulallah ma diin mu ne ko addiin xusnul xulq waa ji ñëwaat buntu càmmoñ ñaata yoon la waa ji ñëw ñeenti yoon ñeenteelu yoon bi yoon dafa ko xëcc mu toog ñeenti ne ko innama bu istu li utammima makaarima al axlaq kon yonent moo doon jàngalekat bu mag bi moo tax même borom xam-xam bi nga xam ne dafay jàngale di waaraate dafay xam yan yoon lay jaar ba waaraate démb barke démb bi seex bi bi ñu jëlee fajar pare mu ñuy mu ñuy mu ñuy nettali di ñu fàttali ci waa ji bi mu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñu proposé di proposé yonent bi ay mbir yoo xam ne waa màkk ñoo ko yónni woon soo bëggee nangam ñu defal la nangam soo bëggee nekk buur boo bëggee yor caabi kaaba gi boo bëggee daraja su fekkee jinne dalaa jàpp ñu dajale la xaalis ñu faj la xam nga yonent bi mënoon na faa toog naa ko xam nga yow danga maa yeb xam nga yow man duma sa morom déedéet yonent bi ne ko ne toogal mu toog yonent bi jàngal ko alquran haamim la ko jàngal jàngal ko jàngal ko ba aayay takarnaase ci kawam yonent bàyyi ko mu ñibbi gis nga yonent bi modèle la toog na ci jàkka ji benn waaye ñëw saw imam su kenn ñëwoon tey saw ci jàkka ji ni ngeen koy def dina yuuxu da nga imam nee na dina yuuxu kon mooy dañ koy caw alaysa kazalik mbokk yi bu benn waaye demoon tey ba tiwaawoon saw ci jumaa ji asalaamaaleykum su benn waaye demoon tam ba tiwaawoon saw ci jumaa ji duñ koy def su demoon ba tubaa saw ci jumaa ji nag ah dañ koy rey pourtant nit ñëw na saw ci jàkka ji gën jàkka yi ma tudd kenn reyu ko waaw ñëw ba ci jàkka yonent bi saw génne baa yàllam cor saaba yu tëb yonent bi ne gaa yi xool ko mu ne bàyyi leen jàmm waa ji taxaw saw ba saw yi jeex yonent bi ne subbu ala bawli l arabi sabban min al ma sotti leen ci sawi arab bi benn baagu ndox waa ji ñëw toog ci kanamu yonent bi ne allahumma arhamni warham muhammada wala tarham maana ahad yàlla yal nag ma yërëm yàlla yal nag ma yërëm maak Muhammad ñeneen ñi bu leen yërëm yoon dina ko dayyaqta alwasiata ya axi waaw dayyaqta alwasiata
ako yaaka mi yaatina moñante yakara kila sallah sallam ako kato karandiro a dolom karandirñaati mi yaalon ko ala karandiro machallah momo ɓulata noon iɓe dañira toon ako katumgo ka mii tan kila sa sallam la karandiro ay karandiro aya sooniyandi ɓe ako lum ɗo sottaɓe sirin alay janon ɗo ke ɗo wota a koomala anata ko kiilay sallallah alih sallam muno kiilo kiilo kaye ko wolondaji ka kettol ko kuma kawndal aya jokko o ɗoyata to feen a fondita ko sirota anata kiilay sa sallam fundani mene mo ñamɗo anata ni anata ko kiilay sa sallam muno kiilo kiila kaye wolondaji ka kettol ayade ko hansani kuma kawndal a telafal ka kuma ɗo mo min misiyatati ɗon a fundita ko den atata fundaɗuɓe ɓurma karola a murtana ko fila sa sallam wonum ɗinon fila kay wonum dañi kesen ɗo a tata ko den a fondita misroto a tata bundaɓe kotana marama karola ɗumtana aya jeni ka o tuma sikkilimna kila kay ko wolomdaji ka kendo kila na kaya saba a kendu sinde a fomñaɗo a kayete ala yende kiile pour kadaji ka kendol timmani ako ala yende kiile pour kadaji ka kendol timmani ako ko daji ka kendo ko yitandi ako lundo fana sotta mo ɗo gonna banta anata kila sa sallam la misroto aya naala sahayibol tara ɓe siiri kendu naata rek a tata misiro kono kara ɗo la a commencete ke sumnayi la misiro to a ko sahayibol kiɗita kama i koye ba faal kilaɓinte a koye ko al be allo ilota kendu e a jalamuta misiro to fa ye bandi kila naata faala sahibole ko al jiyo naatinan bagdañakiɗi aliyaɓo ñin kendu na sumunata kabira ye bandi kendu hakke kiila e daaji ko mi yitanndal a natana si kiila sallllahu alayhi wa sallam ñaato akko kiila mbeɗu alay alma alaye yan fuytama anin te bardol wol dakana taraje bardol wol dakana taraje batte kiila e daaji kole yitanndala wo kamala a bulata ñin diino kono a sonta kiila sallllahu alayhi wa sallam ako walatina kiila ka kono ñin diino alkana kolyandi ka tum alkana kolyandi ala e lekkile ka kuwol soniyandi alkala kuwol kolyandi
yenente mino waaji hatal ngalu yaatu hatal ngalu yaatu waajino yenente bi lan moo yaatu ne ko yërmande yàlla dafa yaatu bul ko xatal ñii say mbokk lañ dugal leen ah borom xam-xam yi dañuy wax ne ñenn ñi dañuy wax ne waaji dafa tuub déedéet aji jullit la jullit la dafa réer rek moo tax mu ñëw ba ci jàkk ji saw borom xam-xam yi doon firi hadis bi ñu ne yonente bi musal na waaji ci ñett bu njëkk mooy musal na waaji ci doggit saw daggi saw yi tey waaji bu doon saw ñu koy dóor saw yi day dem wala day arrêté kon yonente bi musal na waaji ci feebar bu saw yi arrêté naq waaji fu mu jëm kon day neewi kon yonent bi musal na waaji beneen bi mooy yonent bi musal na jàkk ji saw yi tasaaroowul ndax kuy saw ñu lay dóor di la ngàdd saw yi ko xam fu mu jëm moo tax yonent bi bàyyi ko mu saw benn place ba mu jeex mu ne sotti leen ci sawi waa ji benn baagu ndox pour ñu mën ko wis ñetteel bi mooy yonent bi musal na waa ji ci safara ndax bu fekkee bi mu commencé woon saw gaa yi dóor ko mu dee fu mu jëm ku saw ci jàkka yonent ñu rey la kon nga jëm xoolal ñett yëpp borom xam-xam yi nee nañ yonent bi musal na ci waa ji
ako kaatu daaji ka tendo ay nafaa min soto ako kila ñin daji ka kendo ay liñi tandi ñin kendona ako dol ka ko nun lonna dol ka ko nun ko musilmonten nun kendunte ako bari musilmolom kendunti bari musilmolo mi yalon ko afirtano ako daji ka kendo kila mi tandala aya tankandi ku sabala ako daji tankandi kolo wolon minti kenduji na sabrate nun jalamutola misroto ako nimmol ya kusan ako kendu hesara jalamuto a ba kontine men faaɓe kundulale ako min koyta wono ata futandinola ko naame jalamuto futandi wolom atenoɓe funula omo tora silinel ako tora fulanjam wolom kenduni ala ya tankandi tora fulanjam no kila sasalam ya tankandi tora fulanjam no ako tora fulanjam wolom yindi kenduni ima alati foya faaji ako ima alati foya faaji ako tora sabanjam kila ya tankandi minna walam ni ya lapinu na fata ako ni ye momin butenu wodlato ye suuna kilala misiroto ye bute foye fata ako labas fangatije sikkatije ko ni temari o fata ibita dimbala mum ako kila ya tankandi ñin tankata saboɓe la min daji ka kendo ay min yitandala a fela tankata ñin ku sabol ɓeela mbokk yi buñ ci jàng sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam ci la ñuy xamee encore an namusaj benn modèle boo xam ne al amsal lay nekk nekk modèle nekk misaal li raïsi dawla ci ku jiite réew yonent alayhi salaatu wasalaam nga xam ne dafa ñëw ba Medina samp état islam waaye bëri yërmande lool Medina am ay naafiq ñuy wax yonent yi lu nekk yenn saa yi nga dégg kenn ci saxaaba yi ku mel ne Umar ne yonent bàyyi ma ma dagg bopp bi daani adribu unuqa yonent bi ne ko déedéet bëgguma ñu naan Muhammad ma nga Medina di rayaate même yonent bi musta rey nit même keroog ba gaay di bàkku Badr ku nekk naan maa def nangam maa def nangam gaa ñi nee nañ ba yonent yonent bi ne leen maa sànni suuf sa yàlla na ko ne wa maa ramayta is ramayta walakin allah rama te xam ngeen ne loolu sax wérul ah yàlla moo ko ne ba nga sànnee suuf si rek xam nga ne maa ko jël dugal ci bëti gaa yi kon nga gis yonent bi modèle bu rafet bi mu nekk nga xam ne dafa jiite waaye jiite ci ñi ñi ñi ci yërmande su daan dox day wax lan siiru sayra du afaikum dox leen doxu ñu néew doole yonent bu daan dem guerre day jël ñi war fas yi teg leen ci ginnaaw jël ñi nga xam ne ñoom ñooy dox ak seen tànk mu ne leen jiite leen ñiy dox seen tànk la daan teg ci kanam
ako kiilato sallam ke yakala modelo walam ka yakala ako ay nafa ala karandiro i nafa min soto walam a nafa warta fonfon ako kiilato sallam la karandiro la nafa mol baje la sifa labi yalon ko alhamdulillah a warta batel ako kiilanata ko kendiɗo ko alkana kuwol detendi min fanuta ako kamuñol yitandi ma diinoñi amake diinade serundi a falutale a karanata fay ko ala la bala fa waratale ala la bala fa a waratale ala jondiŋol kam a kolatenna a ka fonu sahibole ko alfitama komi fentaŋola alimakoy fentaŋol comme fentaŋol katama ña mana mobili ye lon ko i sembo ɗoyata ban sateñin kono moolu ye jee kowol siifal par ce que aman lafiñin na a ko a ye miŋ tandi hani na mansakel walla ka banko mara a ko kiila sa sallam taata makkale bari ala banku mara ña wole betiyaata ka tum a baloo faata ala maral moolu ye le a baloo faata ye mil man feŋ soto jee to a balol faata ye mil ye a lon ko ye feŋ soto jee a balol faata ye a ko woto hani taamaña duniyaa kono mool ñanta la mo min yaala modeloo sika akon mbaajola beere ɓe kayroo sutala beneen bi mooy azawjul misaali suñ jàngee sunna yonent ñun ñëpp danañ mën a roy yonent alayhi salaatu wasalaam jàng sunnaam naka la nekkee woon ak soxna yi tey bokk na ci sabab yi bokk na ci ndaw yi problème yu ñu am takk fasa takk fasa wala nekk ak say soxna jikko yu bon wala jigéen ñi nekk ak seen borom kër yi jikko yu bon waaw jëlal papa jëlal jëlal joxal ñu ko dugal ci jàkk ci ah loolu lu ko waral mooy ñàkk a xam modèle bu rafet ci yonent alayhi salaatu wasalaam nu mu doon dundee ak ay soxnaam xoolal borom kër ku toll ne yonent nekk ci kër di fóot nekk ci kër di raxas nekk ci kër di bale nekk ci kër di di daw di ànd ak sa soxna ci mbedd nekk ci kër di sangondoog sa soxna ci toilette loolu tey ana kan ci ñun ku nekk modèle ku koy def yonent bi dëbb na ba loxoy fut yonent bi boot na Aïcha yëkkati ko ci miir yonent bi alayhi salaam ànd na ak Aïcha sangoon na ak soxna ci toilette ba ndaw si naan ko desal ma desal ma waaw loolu kan ci ñun moo koy def fii kan ci ñun ngay fekk kilifa ci biir këram tey mu naan day laab xale yi mu naan day rafas toilette yi mu naan day def nangam mu naan day def nangam kon yonent mooy modèle bu rafet boo xam ne sabab yi tey buñ ko royoon ci sunnaam ci doxalinam dana xam ne yonent bi amul morom
ako kila ala karandiro la nafa la waro ako awarta bata ako hani bi kutol nyande jamal katinya jamal katani jamal dia mon katiaje problem ol be siala ne wolom man kila sallallahu alaihi wasallam la sunno le kara ako kadu kila anala musol kabalunu nyami ni wol ya kara isaje ko abenna balu abenna fana na futo diandilal katon ala musol ako domi je aka turoki yel domi je isaje aye makoy jibiyola isaje domi je anise kursoki kata ala musu domi je min keta aysati ako isaje anati ñu bayoke kadduni kordaji dal ma musoli kewtema kila sa sallam ya karandila betu e ako domi je fana isaje anala muso kade jonkona yeku ako wo ɓe biitol kono min jumale boo kela ako wo aɓe aɓe doyala bakele min boo kela ako pourtant kilala karandirolo ako aka suwole ɗiyal ni momo koke ike wakkil ako aka kanone kako ini inomo ñootema asi sabaro ke ini inomo ñootema hujamaɓe je alsaje ko alɓe denno laala le setan o ɓe silo sutunola min mbokk yi laaj bi ñuy laaj mooy ndax nun bëgg nañu yonent kan ci ñun fii moo bëgg yonent bi ana ñu ana ñu bëgg yonent bi ana ñu bëgg yonent bi bëgg ngeen ko waaw naka ngeen di bëggee ku ngeen xamut naka ngeen di bëggee fa man araada an yuhibba ahad laa budda lahu an yaarifahu da ngeen a bëgg a xam kenn ki nga bëgg a xam ki nga bëgg nga bëgg ko sa biir xol dafay laaj ci yow nga xam waa ji ba pare nga mun koo bëgg wala waaw nooy xamee koo bëggul naka la ñuy xamee yonent dañuy jàng sunnaam jàng siram buñ jàngee sunnaam jàng siram ñu xam ko waaye bu ne ñun kay bëgg nañ yonent ana ñu bëgg yonent ñu ne ñu ngi ni loxo ci kaw bakkaar ci suuf ana ñu bëgg yonent ñoo ngi ni loolu kese loolu kese loolu du doy loolu kese doyut de laa budda an nadrus xayaatahu wa siratahu wa sunnatahu sallallahu alayhi wa sallam suñ ko defee rek ñu xam ko
ako ayini ngaro kijan jumale ye kila sallallahu alaihi wasallam kan ako ajele ko mo be e bulo bini de ko ye kila kanu de ako ka kila kanu ita kanu la daman de imano ako mo mo ka fen kanu imam billo ako don kur ka kila kan ko ya la sunno le karam walla ya la iswaru karam ako niyo karare wotumoolo ene kiila sallllahu alayhi wa sallam kanula ako a koytale moom ka fen kanu ima willo a kona kiila a mandan doron molkonga kanule ni ya to ko momo ye kulowili ndi ya ya ko siño bala i ka fo sallllahu alayhi wa sallam ko man kaña ka kiila kanu wolon ay mi yamari yebulanoma ay mi fatandi yo tuje ako momo bulata ala yamaronoma itele kiila sallllahu alayhi wa sallam mbokk yi wa yastahil alxubbu sadiq duna maarifati munta nekk lu mustahil la day jomb munta nekk lu munta nekk la nga naan da ngay bëgg koo xam ne xamuloo ko munta nekk tey ji bu kenn ñëw bu koon laa mayoon jigéen joo xamut ne man damaa yor fële Dakar benn xale bu jigéen benn saasaa booroo du loolu ngeen di wax imaam du loolu gaay di wax ma may leen benn ma su ma ñëwoon tey ne dama bëgg a may Souleymane benn saasaa booroo ah mu ngi fële Dakar nangam nangam ma wax ba sonn lu ma Souleymane di wax oustaz waaw mu ne ko xaw ma ko de ma ne nii la mel dafa njool dafa xees dafa am kii su ma paree mu ne ah xaw ma ko de waaw kon naka la ko Souleymane di bëggee munul nekk nit ki munoo wax ne man bëgg naa nit te kooku ngay bëgg yow xamoo ko ah waaye tey ma envoyé Souleymane photo am ma envoyé ko email am ma envoyé ko numéro téléphone ma envoyé ko jëmm bi léegi Souleymane commencé koo xam bu yàggee Souleymane di ko woo téléphone te man duma ko yëg bu yàggee Souleymane dagg bii ñëw Dakar nekk fa yendu ñibbisiwaat fii te duma ko yëg bu yàggee Souleymane xam ko
ako moom ka few kanu itani imam bi loy mu ka kanu ako wo koytale hadamadum ka fen kanu amo millo ako walatinna moto kiila kanula sallllahu alayhi wa sallam imalo ay misaloji ako exemple ni moobi jam ikoye basola musola komi dakar bari amala photoji amo fen fen je ala fuwoto inata reyti comme o kaari lon aɓe tenni yaala dambe fayi kaɓe tenni ni ya famare aba faale hani nda de manyinje malo kuni ta kanunola akabar ni mario tata yala photo ki kenduye aya jube yala telephone numero ki ay na ya jube no ya tara ya kanu rek iba jalale amario ba killale ab kuma tele musindum killa itami yana bole no amolo walla ay bo sate to jang ay ta ko je mi yana a kafunu ñooma amo ate sarrawla a sitaje par ce munatinna aya jere kabira aya jere aya kanu ako kon moote kiila kanula damanta imaalo fen fen duniya fen fen ita ke ita kanunola damanta imaalo ako kon pour ka kiila kanu wolon fo ŋa karan ŋara sunnolon wolon wala bo yitandi la mbokk yi dama jàpp ne liñ fi doon fàttali bañ julee tàkkusaan ak léegi ay tomb la yoo xam ne war na noo doy ci nu gën a góorgóorlu xam sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam des na benn tomb waaye damay ragal buñ ci duggee mbir mi dana gudd dana gën a gudd ba am na yenn yoo xam ne mi ngi des ci yoo xam ne war nañ koo mottalante ci biir laaj yi ak ñeneen ñoo xamante ne war nañoo dugal tuuti ci seeni pas-pas pour dëkk dëkk dëkk bi xam leen ba mën a mën a jëflanteeg ñoom teg leen côté bañ di leen dugal ci yenn seeni programme diine ndax kat ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci diine nit mënta gëm yenn pas-pas yi ba pare nekk jullit ba pare bëgg a dëkk ak ay jullit di leen tuur ay lëndëm bëgg a yàq seeni pas-pas bëgg leen a sànq
ako kabiri ala sar sal ko la ni sai tema ay bunda min tombo no purnga ka ja kono aka kono faru kale fam fam boya ita le ko ata be bannola ka dum kajjali akono ay min prepare wono aba tila sidula sabale ako sidula folo ni ala fale ka kanya janne sidula fulan jam wolom abole la fakko wole komasi akolo mundi wolom musilmol ntel musilmol ako ñantan hakkilo tula moɗol tule min yaalon ko e koye musilmol le wima ka musilma kuwo baara ako kaatu musilmo ni koye musilmode vraiment i ñanta musilma kuwo le kela no yatara nak i maariomu fo ke rek isalum ko ila musilma yata tatale ako to ho bunda ala fakka jeele commencé ten pour ani ñole mole hakkilo mol ngañu hakkilo bulandi woto ɗumundi
da benn tomb bi desoon mooy aqwalul aimma ki ci jiitu mooy abu hanifa ku nekk rek ñu jël ci yow benn boo wax dénk ko jullit yi pour ñu mën a jël sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam xoola abu hanifa bokk na ci ay waxam mu ne isa sax al hadis fa huwa mazhabi mu ne hadis su wéree man abu hanifa mooy sama yoon waaye bokk na ci li mu wax mu ne laa yaxilu li ahad an yaaxuza bi qawlina ma lam yaalam min ayna axasnaahu kenn ci ñun daganul du dagan ci yéen ngeen jël sunu wax ñun ay imma yi di ko ndëgër laayoo di ko tës laayoo te xamu leen ñun fu ñu ko jëlee xamu leen ñun fan lañ ko sës kon ñoom ñoom ay imma yi boo jàngee seen dund nga gis ne amuñu lu ñu wuuteeg yonent bi alayhi salaatu salaam amuñu lu ñu indi lu bees yokkuñu dara waxi yonent bi lañ doon jël doon ñu ko firil ngir ñun mun koo dégg mun koo dund kooku mooy Abu Hanifa loolu la wax ci sunna yonent bi.
bunda fulanjawo ñi wolom ñin girdiol mole girol min lon wolom naaneti ako aɓe kolola min kolola kuma kawna wolom abu hanifa ti ako wo kole hadis o akoyta dawoda wolom ɗum kolla tamarantilol kilala kuma kan ya ko dawoda ni o yatara wolom toñaati itel wolom ila bararawti ika bula wole noo
malik lan la wax ibnu anas mu ne innama ana bashar أخطئ وأصيب فانظروا ما في في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه دارن wax كل الكلام يؤخذ ويرد إلا صاحب هذا القبر Imam Malik nee na xool leen man nit dong laa xool leen samay kàddu ndax kat damay njuum di jubal su ngeen xoolee samay kàddu lépp lu ci dëppoog sunna yonent bi jël leen lu ci wuteeg sunna yonent bi teg leen da doon wax ne man Malik waxu ku nekk dinañ ci sikki sàkk lenn ñu jël lenn ñu bàyyi ba mu des waxu yonent bi asalaam yonent bi nee na lu mu wax imam Malik nee na lu yonent bi wax rek mooy dëgg Malik daa bëggoon yonent bi ba wuy dox ci biir Medina du sol daal
ako ñi jirtio mo fulanjaw min keta imam Malik ako abola kuma kawle fonon foram way min ko kiila sallallah sallam la jimin noon ako kaadu imam malik ko indol mum woodam manne waato dow bije e se juumuno ila kuma kawol walla i keɓarol waato ɗo bije i se mol kandatino ye londino silo kam ako anata kuma kaw ɗo ɗo ako momo isala kumo e ɗo sikaje ye ɗo fay faye to yinkel ɗum na bo fola aka kila sallallahu alaihi wasallam la kaburo le man aka kono momo la kuma kan na ya ko molbe do taala jele na do se ndama fayi to nyimmo nyimmo nyuma wolo kila sallallahu alaihi wasallam ka dum ade ala la yati ata kuma fala min manki ala la kuma imam shafi doon wax ne iza wajadtum fi kitabi khilaafu sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqulu bi sunnati rasulillah wa da'u ma qultu imam shafi doon wax ne su ngeen fekkee ci tëma sama téere bii lu ma wax mu wuuteeg waxu yonent bi jël leen li yonent bi wax ngeen teg man Shaafi ay lu ma wax kon ñoom amul kenn ci ñoom li ma waxoon sànq ku sos lu bees wala ku indi lu bees bal ku ñëw fekk yonent bi wax nit ñi dégguñu ko nga fexe ba ñu dégg jegeel leen wax bi jegeel leen maanaa bi loolu la mais amul kenn ci ñoom ku wuuteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam akoni imam shafi o fana ye kuma kawo min fo kila sallallahu alaihi wasallam la sunnoto ako koyle ko ndala kitabol to ale kuma kawo kuma kan daraje ji konte ma inde shafi de yafo altata kila sallallahu alaihi wasallam la sunnoto almo ko daraje ako ali na kuma kawo diga ali ya tenkun kadum ale ko kila sallallahu alaihi wasallam la kuma kawo non kadum ala ya tade ki ako idel ummat habtiol yel matabo ke yinnaran wolom ka kuwol pasarmole wolatinna pour mol sa kala a kuwol molta diino moyno wolanna ya créeno bara amanke ɗum kuutimi yaalon ko ibanatlala pour ka kuuɗo keñi diino kono mi yaalon ko ɓe kela kumkuton imam ahmad moo ci des bokk na ci ay waxam danoon wax laa tuqalliduni wala tuqallidu malikan wala shafii wala awzai wala sawri wa xuzu min haysu axazu imam Shaf Ahmad da doon wax ne bu leen ma toppandoo bu leen toppandoo Malik bu leen toppandoo Shafii bu leen toppandoo Awzai bu leen toppandoo Sawri jël leen fagaa yooyu jële
ako ni imam la labo min ta abu hanifa ta ako wo ka fono ne ko alkana bulande ndenoma nabarol la alkana bula malik nabaro noma alkana bula ahmad nabaro noma al bula won tel tel tel na nabaro sika min bulu bulum kan nabaro al tabaro sika wot wala mun dot wala kila sallallahu alaihi wasallam alay yamaro akoji imam abu hanifa way kuma kawne ko kila ma sallallahu alaihi wasallam kon mbokk yi ñoo ngi jégalu imam ñoo ngi jégalu bu baax a baax di jégalu waa dëkk bi waa jàkka ji góor ñi ak jigéen ñi ñu wax li ma waxoon commencement loolu la ñu waxaat ñëwuñu woon pour jàngale doon ñëwoon doon fàttali kese ndax imaam yu mel ne yéen ak borom dëkk bi nga xam ne wax dëgg yàlla yéenay suñuy kilifa li ñu tàmm di def rek mooy chaque jour ñu chaque année ñu jóge Dakar ñëw fii ziyaare leen yeesalaat mbokk gi yeesalaat xame gi yeesalaat am am di jaamu gi loolu donc mënu fi indi noo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu njuumte yi ñu ngi leen di ziyaare di leen baal wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
ako aɓe yan fo dani la musilmol ɓe ma surtout imam aka bal konto na bal jeyla ako komi kuma kan folo ay min fonu kuma o laban folo to wolom imanna karandir la jam inatare pour mole hak ñon hakkilo bulani ka ɗum komi alale yamaro mi wala ako wole ye sijam ako komi san o san ika keno ñaami wala na ñinan fana inata pour in mbaade musilmole ñon hakkilo bulande in jinola karol ako wole ye saabu jam o kola e waldani la yan fola kuma kawon kuma kan tilinta jam isalon ko allah subhanahu wa taala ala kuma kawon bar kuma kawon kuma kan fota jam mi yalon aman yan fola akoy si yan fuyma isalon ko hadamadiya naso wole yo saabu akaɓe kuma kawon dandila jam wa akhiru dawana alhamdulillah subhanaka allahuma